Yok. Là, vous mettez ça à l'intérieur, comme Madame Dion, votre effectif euh, C'est combien C'est 26. Combien de garçons 6 garçons. Oui.

ok ok mbokk yi bi ñu balayage bi di montrer que ñu ngi fii ci école 4 euh, bu Koungheul école El Hadj Alioune Badara Seye bu CFO bi xam IDEN IEF bu Koungheul mu ngi koy organisé moment bi ñu ngi taxawal directeur xam naa dañ koy bàyyi mu nuyoo présenté wu waaw man la Modou Gningue mhm. directeur école El Hadj Alioune Badara OK. président centre mhm. El Hadj Alioune Badara ok donc fii mhm. euh, nous avons 157 candidats ci candidats yi il y a 58 mhm. euh, garçons. Mhm. et 97 filles. 97 filles. est ce que loolu la ñu mën a wax ci est ce que démarré ngeen normalement amul dara loo xam ne mu ngi leen gàllankoor ci liggéey bi. waaw euh, démarrage bi démarré nañ à l'heure mhm. juste à 8 heures. donc on a déjà les candidats déjà dañoo fekk ñu affiché liste candidats yi ci salle bu nekk. donc ñoom déjà xamoon nañ seen seen place seen salle seen place. ok. et après bon surveillant aussi ils étaient tout ñëpp ñëw nañu à temps. Mhm. donc euh, ñu répartir leen ci saal yi. Mhm. surveillant yi. Mhm. donc ci nekk euh, saal bu nekk deux surveillants lañu ñoo fa nekk. léegi ñi ci des ñu dugal leen ci secrétariat bi. secrétariat bi donc ñaari secrétariat ñoo am. benn secrétariat restreint soo xam ne président bi ak vice président bi ak benn secrétaire ñoo ñoo fa nekk. beneen kii secrétariat bi. ñooy quatre secrétaires ñoo fa nekk ñoo xam ne ñoom ñooy. chargé wu di def ventilation euh, copie yi. ok waaw. mais yéen amu benn jëggalankoor wax ba gis nañ ne mbir mi dañ ko jël encombré ko fii ci école école euh, El Hadj Badara Seye gis nañ ne yi xam nañ problème bi fa nekk mais foog mu déggee si yéen yéen problème yoo xam ne moom mën ngeen jàkkoonteel fii ci ci seen école yi ci ci démarrage bi. waaw ci démarrage bi liñ ci xaw a dem jàkk ci problème rek mooy élèves école élèves yi nga xam ne dañoo jóge ci yeneen écoles yi ci àll yi surtout. Mhm. ñoo déplacé wu ñëw fii nii. Mhm. xam nga seen prise en charge dafa xaw a day day jafe. Mhm. donc fi mel ni seen euh, maîtres yi nga xam ne ñoo ñoo leen gunge actuellement dañoo préparé sax ñu ngi euh, leen di toggal pour mën a añ. Mhm. balaa ñu mën a tardé ngoon parce que 15 heures la ñu war a bant mhm. donc tey ci suba rek maa ngi leen doon wax nañ fexe ba añ bi daal mu bañ a tardé bañ a yii. bañ a tardé. Euh, président GDI. président CGE yi ñoom aussi bon manifesté wuñu mhm. pratiquement ñun directeur école yi daal ak jàngalekat yi lañ gis ñu ànd ak seen seen mhm. mu nekk loo xam ne loolu problème la quoi problème la ah. parce que vraiment aussi encore ak autorité yi autorité administrative ak géré est ñoom yëg lu mel ni préfet wala lu mel ni les maires le maire voilà ñooñu ñëpp vraiment waroon nañu mën a jàppale CGE yi surtout comité gestion yi mhm. gestion yi loo boo gisee sax ñu am jafe-jafe yi ne dañoo dañ leen a jàppalewul amuñu benn soutien boo xam ne mën na jóge ci mairie wala ci euh, préfecture yi yooyu noonu. ok nekk lu xam ne cotisation école rek la ñuy yem ci cotisation yooyu ci école yi daanaka doxul. doxul am na cotisation yoo xam ne daanaka euh, du mën a def dara. Mhm. ren ci suñ ñun ci suñu école comité gestion bi deux cent cinquante francs la fixé woon cotisation pour élève. Mhm. donc ñu defaat ci ñaari mbaar ñaari abri provisoire. Mhm, pratiquement ci la jeex. donc loolu daanaka mënul ñoo jëriñ dara pour mën a def leneen waaw kon daal ci effet bi mu nekk effet bu am njëriñ que xale ñi tàggal leen avant ñu dem ci examen final bi mais problème yi am na ay difficulté yoo xam ne mais yéen jëng ngeen ko rek bëgg li ngeen def moo tax ngeen def mais amuloon kenn ku leen ci gunge voilà c'est ça waaw vraiment bëggoon nañ ñu gën ñu jàppale gën ñu gestu daal ndax loolu man a mën a gën ma gën a mën a dox. ok waaw eh, mbir mi fii la yem wala da ngeen def benn essai avant examen final bi wala bi mooy bu xam ne bu ñu ko defee da ngeen dama taal tàggat xale yi. incha allah buñ ko pa buñ ci génnee dinañ dugg ci beneen essai boo xam ne ci niveau départemental lañ ko programme woon. ok donc boobu buñ ci duggee boobu aussi bu paree nañ ci defaat beneen essai balaa ñuy balaa ñuy balaa ok donc des na daal ñaari essai yoo xam ne. Mhm. programme nañ ko ci département bi. ok kon bii moo ko proposé. ok IA Kaffrine moo ko proposé. ñu tur waaye man la Modou Gningue directeur mhm. El école El Hadj Alioune Badara Seye. ok ah, jërëjëf nga def ñu ko déggandoo bu ñu ñëwee dugg nañ ci classe yi classe fi nekk ñëpp gis nañ élèves bi liggéey baa ci jaar ci yoon moom mii mooy directeur bi nekk fii euh, ci centre bi nii c'est vrai bi nekk ak seen naan ñoom ñoo ko res te loolu dafa nekkoon lu métti bonne volonté yi war nañ ci mën a jàpp autorité jàpp ci ñëpp xam ne mbir mi seen mbir la parce que ñii nekk ay directeur li ñuy def tout simplement mooy que ne tey ñoo am am réussite ñëpp xam ne Koungheul daaw moo jël premier ci ci ci euh, région de ci CFO bi cette fois ci ñu ngi ñuy nañ pour jël jalaal loolu lu bëgg sax mooy jël ko niveau national kon donc si ñëpp dugal seen euh, xam ne ñi ngi ànd ak moom mooy mën a wax moom ci xalaatam kon jërëjëf euh, monsieur ñi ngi ñu ngi lay gërëm di la sant di ànd ànd ànd ak dugg ci biir pour mën a jël yeneen gars yi il que directeur d'école bi nekk président centre bi dañ koy bàyyi mu présente ñu wax ñu moom ban école la jekko monsieur Sène ñu ngi lay nuyu. ngi lay fay euh, allez waaw monsieur Sène ñu ngi lay nuyu comme bi ñu paree ñu ngi léegi ñu ngi laaj laaj itam euh, fan nga jekko je crois que fi nekk sa école mais nga présente wu balaa ñoo démarrer. voilà donc euh, monsieur Matar Sarr. Mhm. donc maa je suis par ailleurs le secrétaire général euh, du CELS. du CELS voilà donc euh, ñu ngi ñëw fii école euh, pour def essai régional bi. accompagner suñu élèves yi donc ñu ñëw fii. voilà comme ni ñu ko gisee. donc ñu ngi ñëw di déroulé essai bi comme il le faut quoi. voilà donc li ma bëggoon a wax donc je vais parler du côté de de problème de l'eau. ok voilà donc Matar. temps yi fan yi bon am école yu bëri yoo xamante dañoo confronté à des problèmes de. voilà donc. seen ñu mel ne école 5 école 6 école 3. Mhm. problème mu ndox mi moo fi problème. ok oui est mën nañu xam problème bi su la jee ko parce que loolu nekk na lu loo xam ne ay roy xale yi ndaw yi ah. mooy de 16 ans mën nañu ko wala mooy de 10 ans. Mhm. ñu amuñu ndox. très bien ñëw si loolu. problème bi li ko bopp moom. bon d' après les bon municipalité bi ñoo ñoo fayu facture. ok man nag wóorul. Mhm. waaw ñi municipalité bi moo fayu facture te facture dañoo élevé. Mhm. de sorte que mënuñu koo fay. Mhm. mais ñun daal li ñu bëggoon mooy ñu ñu jàppale ñu si. parce que vraiment école boo xamante ni amul ndox. fonctionnement bi du jaar yoon. des élèves yoo xamante ni moins de 16 ans. waaw ah, ñi di dem si teel di ko ndox ah tam dafay am ay conséquences. parce ay xale yu ndaw donc nekk si école bon boo xoolee

donc ñu ngi ñaan daal gars yi ñu ñëw. ñu dimbale ñu indil ñu ndox.

essai bi bu gis ñu ne démarré ngeen ce matin nga jékko école 5 ñëw fi école 4 euh, xam nañ di tax parce que seen école amul ndox mën na leen tenir foofu mu nekk centre moo tax ngeen ñëw fi mais est ce que li ngeen jëlé yépp euh, teg ko ci école 4 est ce que euh, amul benn problème ci ci ci déroulement bi bon déroulement bi je crois que bon présentement amagul problème majeur hein hmm. waaw certes bon jógee nañ suñu école ñu ngi fini école 4 hmm. donc ñu ngi bokk bi Euh, fii nii la ñuy defee examen. donc suñu école amul ndox. sax mhm. ñu déplacé wu ñëw nañ fii nii. Mhm. bon condition yi nag gis nga ko. Mhm. yow xoolalal sa bopp. suñu toll nii. voilà donc ñëw nañ ñu ngi def. Euh, examen comme pour le moment daal gisaguma euh, benn problème majeur quoi. ok comme problème bi ma laaj ci léegi problème mu xam nga gis am nañu essai régional am nañu jéego ci àll bi seen restauration seen genre demee noonu est-ce que yéen enseignants yi yéen a ko prévoir en tant que syndicaliste côté boobu noonu lan la ci gars prévoir pour ça. voilà donc d'habitude euh, d'abord pour déplacer, bi souvent ça pose problème parce que école yoo xamante ni àll yi. Mhm. accessibilité bi tam c'est pas facile. Mhm. voilà donc déjà le problème la bu ñu ñëwee d'habitude dañ daan organiser wu bon faire des petites cotisations ensemble ñu passer la journée mhm. pour euh, def liggéey bi nu mu gën a quoi voilà mais présentement nag ñu toog di xaar euh, direction ba xam la lañ ban kii la ñuy décider quoi mhm. xaw ma nag ndax tey dañuy passer la journée ou pas mais bu fekkee dañuy passé kii journée bi fii nii mhm. loolu mooy li gën quoi mooy li yombalal liggéey mooy yombal liggéey ñu def parce que comme li nga école 4 ak école 5 sore na trop élèves yi dëkk côté bé ñoom war a ñëw fi war a bëgg ñibbi at da nek lo xam dina metti lool quoi côté boobu lañuy laaj ndax en tant que yéen gars jël nañ des matukaay sur ça quoi bon à ma connaissance kii bon wax si dara waxuñu si dara d'habitude buñu daan def essai dañ daan ñëw ñu ni ñu da ngeen di indaale dara bu ko défé ñu préparer élèves ça gis nga école centre ak école 4 distance distance presque ay 2 km mhm. voilà donc bu boy mënu ñu di wàcc 13 h naaj bi tang ñu dem seen kër yi après ñu ñëwaat naaj bi da fay metti le mieux mooy ñu togon fi passer la journée ñu préparer leen mais je crois je crois que tay di loolu nga xool situation yi koy am fi après dinañ gis ak EF ñu ngi ànd ak moom dañ ko laajte loolu léegi comme ni ñu koy waxee rek nga déroulement bi moom loo ñu ci mën wax du ah. a pas ah. ok nga fàttali ñu si tur waaw Moussa Sène euh, ah. école 5 adjoint directeur ne ko déggandoo Moussa Sène lañ nekkaloon jël ko ci enseignant yi nekk syndicaliste problème fi am ak problème bi tax ñoom ñu déplacer seen école ñëw ci école bi nii mbir maa ngi noonu mbokk yi mbokk Koungheul yi na ci seen dooro problème am na ci Koungheul mooy que ne école yi la plupart des écoles yi nekk fi amuñ ndox ñu nekk ay xale yi ndaw mooy de 12 ans war a dem toilette war a def yeneen war a lekk war ñu ndox cantine scolaire sax togg parce que amuñ ndox ko waxee dégg ngeen ko je crois que lii doy na yaram ci ku nekk kuy bonne volonté wala ku nekk facture war ko mën laaj nga fay ko jàppale xale yi nii ñii ay ñoo xam ne bu lu neex ñu toog seen kër yi wala classe yi bañu def essai général mais ne dañu bëgg xalé motax ñu nek des enseignants kon donc ku ci bëgg lu baax bëgg jappalé xalé na ñëw jappalé école yi ñu nek mairie bi mom lance nañ ko appel ba sonn ñu ngi lancer appel encore facture yi nu mëna mën nako régler pour jappalé ñi ni xamna tay ñu ngi koy def kon monsieur ñu lay gërëm di la sante da bayyi mu ak ak comme ni ñu koy waxee rek euh, nu mu amee problème mu ndox ba léegi suñu am ay problème mu abri provisoire biir Koungheul bu ñu waxee ba léegi ne école yi ñu ngi am ay abri provisoire ba léegi doon ko gëm voyez école euh, école cadre bi ñu nekk nii di école Alioune Badara Seye ñoom nee nañ seen CCG mënuñu am xaalis ak seen abri provisoire yi classe yi matul ba léegi loolu moo tax ñu am ay abri provisoire nii voyez mbir maa ngi nii mu nekk lu métti daal euh, la ñu leen mën a wax